waaye tam kooku Lamine Golo la nañ ko déglu te ñëwaat. gannaaw maa ngi sant. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax. booy jëlee yaakaar naa ne tamit su am solo digganteem ak Ndande Fall mu uh-huh. gisee tey état de forme waa dara di ko ñaanal sunu borom defal ko ndam rek. ndax yaakaar naa ne tey jii su nekkee ron rek déggal ko lépp lum bëgg rek dina ko am. ndax tey jii man mii di wax yow mën naa ni ron mooy sama doyen si lépp. te wax dëgg yàlla yaakaar naa ne prépa ni ma ko gisee préparation bi jaar na yoon te moral bi ma ko fekk baax na c'est la première fois mu am combat ma ñëw këram ndax lan cër gi ma jox ak wóolute gi ak lépp daal. waaw mhm. nga gis ko yaakaar naa ne Nande Nande Fall. Mhm. Nande Fall am ay qualité yu nekk ci moom. Mhm. yan qualité nga gis ñu ne Nande Fall am na ni bu contrer kala yooyu mën na si man li may wax rek man su ma yoree sama leader tey jii muy bëre du ma gaa qualité ki muy bëreel. am ko am na solo mais da ngay gë da ngay basé wu si yi nga am te ci loolu ngay liggéey te yaakaar ne lépp réeroo ñu benn yoon si kombaam bi waxtaan nañ si te mu ngi may déglu def lépp sànq suba laa fi ñëw mais daa am lu taxoon ma ñëwaat fi nii sax moo tax ngeen fekk ma fi mais ñëwoon naa fi suba ba dem mais maa koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla suturaal ba combat bi muy dënmal tey sunu borom defal ko ndam. tey ko jëlee yaakaar naa ni sotti yi gis nga mhm. na fa yu gàkku de biri yu bëri bi gars yi naan gàkku de yaakaar naa ne su ma juumul sax. Mhm. toog naa si yooyu béy ni Thiat Daara Fall ak ki nga xamante ni nii mooy kilifa yi de taxaw na. waaw di ñaan rek suñu borom yeggale ñu seeg jàmm ju am ndam ndax tey jii mën naa ni Thiatou Daouda Fall kilifa yi kooku du kombaam sama komba lu tax nga ne sa combat combat. man maa xam ne tax ma wax ko. Hmm. combat boobu sama combat la du combat ci daaw dafa am. mais géejawaay caaru géej biir bi dafa mel ni li nga xam ne moo nekkoon diggante Pikine géejawaay bari loolu moo tourné waat foofu. non non du question de dara dafa toll yoo xam ne dama maa ngi wane sam bopp rek. Hmm. mais dafa laaj ma gën a wane waat sama nee naa leen dama soxla ay relève caat lu mu bon bon bon wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla lafal caat musal ko ci lépp mais daa bokk samay relève moo tax bis bu mu am moom bisam du ma ko caaxaane sama bis la ndax respecté na ma jox na ma cër baayam laa du dugg si dara loo xam ne woowu ma téléphone wax ma tey jii combat boobu di A à lépp lu mu ciy dugg rek woo na ma ne ma nangam ak nangam man ñu waxta day waxtaan daal day communiquer man ma maag samay boy. mais yan jafe-jafe la école de am parce que yaakaar naa ni gis nañu ñu bëri nee nañ te Balla fi nekk bi léegi équipe bi daje entraînement normal ñëpp ñëw problème la mais loolu lañ jafe mais li ëpp solo rek man mooy jafe-jafe yi nit ñoo gis mais lan lañ laaj di bëri di daan. booy ñu ngi bëri di daan moom ak lu mënti xew école bi lépp lépp matul 100 pour cent mais li ëpp solo mooy ndam li mooy booy di bëri di daan dafa yaakaar naan bi Père Balla génnee àdduna ba léegi génnaguñu cinq premières yi deuxième troisième quatrième cinq sax jëlaguma ko kon maa ngi sant yàlla bu baax. première rek moo ma jaaxalagum te naa ko jël incha allah moo la jaaxalagum. mais yaakaar naa ne gis nga combat bi avorté diggante Balla Gaye Eumeu Sène combat bi avorté. du ma ci wax. lu tax du ma ci wax. Ah. waaw du ma ci wax ndax lu ma wóorul la woon. wóorul la woon. en tant que coach wala waaw en tant que coach. du ma ci wax du ma ci wax. waaw mais non déggoo la nee naa leen ba tàyyi lu may wax lu ne damay wax lu ma maîtriser. Balla Gaye am na combat. amul combat ak yooyu yëpp communiqué woon sew ak man ba ma koy wax. Ah, kon su làmb jotuñu see waxtaan moo tax te lu ma lu ma lu ma luñ waxut ak man du ma ci communiqué. mais loolu Balla Gaye sama xarit la sama lépp la du entraîneur du dara yàlla moo ñu boole ma ak moom. Ah. sama xarit la du cadre ay entraîneur ak yooyu nee leen ba tey Balla Gaye du ay làmb la ñuy toog dañuy toog di waxtaan chaque jour 24 heures sur 24 te duñu wax si làmb sama digganteeg moom du ay ay entraîneur ay yooyu dañ koo weesu ak moom sénégalais yi ñoo ko déggee xëy na déggeen bu xawutoon kii rek mais maag Balla ay xarit lañ. non ay xarit nga parce que dinaa gis yéen ñaar ngeen ñaar nga daan sotti galaaj bu jógee foofu noonu ñëw gérer mu dégg équipe bi koy gérer donte waxee na noo xamante ne nee na doo entraîneur am amaana ñeneen ñu gisee ko neneen ñeneen ñu gisee ñu ko neneen mu ni doo entraîneur Balla loolu mu wax dëgg la mooy li ma leen wax maa ngi moom dañoo bokk ñu formé muy Baye Balla nu mu mel tey rek Baye Balla la man nu ma mel tey Baye Balla la kon tey su toogee ne man du ma entraîneur wax na dëgg man Balla Gaye mënu ma ko yokk dara mënu ma ko wàññi dara xam nga lan laa mën di si mu nekk rek ma nekk di ko poussé si pour sunu borom defal ko ndam. non mënuñoo am ku ma gën. waaw mais tamit yow Balla Gaye taxaw ne doo entraîneur. Balla Gaye de Balla Gaye fi mu toll fi mu ne nii si làmb suy bëre su ko amul kenn ku toog siège bi sax war na mën a gérer làmbam. ndax yàgg na si ku dem ba nekk roi des arènes yaakaar naa liñ lay mottali si làmb bariwul Balla Gaye ñu ko dar ñëpp xam nga lan lañ mën ci moom soo indiwoon woon bi dàq entraîné si àdduna lim mën mooy pousser ko rek mais mënoo koo wax la muy def ba muy bëre di daan sax fekkee naa ba tay baa bàlla mosu koo wax ne ko nii ngay bëree wala nii ak nii doole bu ko yàlla may bëre am bërekat la mbër la yàlla na ko yàlla defal jàmm loolu rek laa koy ñaanal. boo booy amoon loo xamante ne mm-hmm. wax ne Balla Gaye de entraîné tul moo tax rek mu ngi chaque jour mu ngi dem salle mu ngi def lépp lu ko war. gars yi ñooy war xëy na li mu nëbbu ak tëju rek moo jaaxal nit ñi mais lépp lu war si làmb mu ngi si nekk ñaanal leen ko rek yàlla defal ko jàmm. ndeysaan kooku moo nekkoon euh, Lamine Golo.